s'est passé au Sénégal euh, en ce qui concerne la date tey ñu ngi ci 19 euh, janvier 2021 qu'est-ce qui s'est passé le 19 janvier en 2017 on démarre tout de suite lan moo xewoon ay ñu dem Grégoire on regarde l'image ni ki tey lan moo amoon ci euh, Sénégal fii lu ñuy fàttaliku voilà bonjour hein je vous salue bis ni ki tey le 19 janvier 2017 président gambien boobu ñuy Adama Barrow waa Gambie dañ ko fal ki nga xam ne moom moo di Yaya Jammeh lànk kandaare ne du génn ci pouvoir bi ndax moom moo gagné siisu daal la Yaya Jammeh defoon kon bis ni ki tey la Adama baro defoon li nga xam ne moom moo di prêter serment ci assa ci ambassade bu Gambie fii ci Sénégal donc jour pour jour jamono yaay jàmm mi ngi toog Gambie ne du génn euh, CEDEAO doon jàngat li nga xam ne moom mooy mbir yi naka la ñuy def ba waxtaan ak moom bu mu génn ci nguur gi ci jàmm ak salaam ce qui veut dire que toog siisu yàgg na ci Afrique ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis c'est vraiment un pur produit africain et Donald Trump n'a pas le droit de nous chipper ça et ça s'est passé euh, un jour euh, c'est son anniversaire aujourd'hui le 19 janvier 2017 ñuy jàll ci beneen information bu amoon bis ni tey ba tey ñu fàttali leen li nga xam ne moom moo jotoon a am euh, ci le 19 janvier lan la lan moo fi amaatoon allez on regarde Alioune Tine mi ngeen di seen kon le 19 janvier 2015 la Alioune Tine def li nga xam ne moom moo di euh, jël ay fonctions ci directeur de bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest kon Afrique de l'Ouest yëpp ngir xeex ak yelleefu doomu aadama kon le 19 janvier 2015 la ñu tabb Alioune Tine mu doon euh, jiite li nga xam ne moom moo di rencontre africain des droits de l'homme di RADDHO di xeex euh, àq ak yelleefu doomu aadama yi tey jii Boubacar Seye mu ngi ci euh, ginnaaw baro yi li ko fa yóbbu moom mooy dafa laaj fan la xaalis bi Union européenne doon jox état bu Sénégal ngir ñu xeex li nga xam ne moom moo di ndawu réew mii génn di uti leneen feneen ba seeni bakkan di rot ci géej gi kon 19 janvier 2015 la Alioune tàmbali liggéey boobu ngir xeex ak ak yelleefu doomu aadama ki ngeen gis moom mooy Jules François Bocandé yàlla na yàlla sereli ya xam ndax génn na àdduna <coughs> mais le 19 janvier bis ni ki tey le 19 janvier demi 1992 euh, kon le Sénégal doon football ak euh, Cameroun Sénégal Cameroun ñu éliminé Sénégal quart de finale Coupe d'Afrique des Nations Cameroun dooroon Sénégal un but à zéro fii la woon stade de l'amitié wala stade actuel Léopold Sédar Senghor loolu la ñu jot a jàpp ci bis ni ki tey voici notre une du jour qui s'intéresse aujourd'hui euh, la une du jour aujourd'hui s'intéresse à ce qu'avait dit euh, à ce qu'a dit l'entretien exclusif de la première dame du Sénégal avec le journal Les Échos entretien di ñu euh, Les Échos di ñu fàttali li nga xam ne moom la première dame wax li ci gën a gàtt daal mooy nit ñi dañ ko doon jiiñ ñaare ne dafa maanaam daal yeeyu sagar maanaam daal dafa dafa dafa dafa dof daal mu ne bu leen rafetal wax ji nit ñi nee nañ dama dof mais ni ko nit ñi di déggee moom Marième fay sàll noonu la ko déggee yëgul tinu daa toog ba yàgg rek dégg ci internet bi ku nekk yor sa micro wala yenn sites yi wala média yi di wax ne moom dafa tàggali tàggalikook sagoom dafa àndatul ak xelam dafa dof mais daara du ci dégg kon une boobu moom mooy suñu une du jour tey ñu jàll ci li nga xam ne mooy le saviez-vous ndax xamoon ngeen ne euh, ci àdduna bi at bu jot dinañ naan lu war a tolloog 400 millions de tasses de café mais c'est pas mauvais par jour dinañ naan euh, un million cent mille tasses de café dans le monde un million cent mille tasses de café dans le monde boisson bi ñu gën a naan après ndox ci àdduna bi c'est le café et le café a été euh, un produit pur africain parce que ça a été découvert à Euh, n'Égypte lii waral euh, ñu leen di fàttali loolu moom mooy kafe dafa am ay vertus surtout érectile ñi nga xam ne dañuy faral di bëgg njaxlaf ci kaw lal kafe baax na ci lool ndax bu ñu ko faral di jëfandikoo dina yokk seen garantie 40 pour cent ci li ñuy jëfandikoo ci wàllu wér yaram café dina fattar ñi yenn tur yi waroon a fatt ba bu ñu jëflanteeg seen euh, coro mbaa seen soxna yëf yi dina yemb donc le café est très très bien pour la santé Euh, si vous en buvez n'arrêtez pas continuez à en prendre café nag amul bi ñuy defar industriellement ak bi ñuy defar euh, wal te ñu koy wax fii ñun ci Sénégal euh, café Touba moo ci bokk yem voici ce qu'on pourrait vous donner comme euh, information dès le matin quand on, se réveille le saviez-vous la une du jour ak bis ni ki tey dañu daal di tàmbali waxtaan wi on parle de cinéma tous les matins du mardi avec euh, Lamine Ba Lamine est déjà avec nous sur le plateau Lamine maa ngi lay nuyu di Pape Sidi maa ngi lay fay di la delloo ziar bu baax du ñuy téléspectateur yu ñuy seetaan comme tous les mardis c'est reparti pour parler du septième art tey nag Pape Sidi tey dañoo am invité. invité waaw tey dañoo am gan Pape parce que tey suñu invité.